gan gi Assane Samb directeur de publication bu réew mi quotidien di analyste politique Assane ñu ngi lay nuyu. Fatou maa ngi lay fay nuyu. Ah. di ziar waa rajo bi président direction générale di nuy tamit auditeurs yi. ñu ngi lay delloo ziar am mbégte dalal la ci matinalu tey bi euh, Assane euh, war a waxtaanee naturellement élection locale yi nga xam ne moo doon am démb euh, yooyu la élection nag commencé wone ay tendance li nga jotagum gis ban jàngat nga ci def. waaw Euh, contrairement ñuy wax surprise je pense que li daan am moo am. Hmm. mooy les grandes villes quand même euh, pouvoir bi daf koy mos a ñàkk d'habitude. nenn bokk boo jëlee Dakar Ziguinchor. Euh, Kaolack ay ay ay Thiès Touba loolu de surprise. je pense que souvent pouvoir bi def daan am difficulté. te opposition bi moo daan gagné ci zone boobu te lool moo amaat maanaam opposition bi moo gagné effectivement surtout Dakar la bataille de Dakar nga xam ni. ñu bari dañ jàppoon ni pouvoir moom du ñàkk Dakar mais électeurs yi nag ñooy décidé donc euh, li ñu ci gën a jàngat mooy effectivement transparence am na ci élection yi contrairement li ñu doon xalaat et que li daan am am na maintenant am na ku mel ni Serigne Boub créer surprise au niveau de Kaolack et dama ku mel ni Ahmed dara nga xam ne au niveau de Guédiawaye am na quelques surprises comme ça euh, sangal kam bu Omar Gueye ñàkkee sangal kam loolu mhm. kenn xalaatu ko woon évidemment ah yooyu moom <laughs> dafa xaw a kéemaane. Mm-hmm. Euh, Diouf Sarr qui perd également Yoff et tout le mm-hmm. reste. Mm-hmm. en tant ministre de la santé. Mm. Euh, ak mooy mobiliser yëpp. loolu tamit ay surprise la bon maintenant euh, victoire Ousmane Sonko. <clears throat> à euh, Ziguinchor euh, loolu mën nañ ko comprendre Casamance naturel day jàpp ni mën na gën a tungoom mhm. doomam pour mu gën a mën a nekk euh, mën a réussir nekk président la République et je pense que message boobu moom nga fay jàngat. Mhm. sëriñ buum nag dañ ko xàllal yoon wi pratiquement parce que tamit Benno Bokk Yaakaar boo boo dàqee le président du conseil départemental dàq <laughs> investir ñu maire investir ñu maire sortant investir ñu président conseil départemental sortant ki nga xamante ni mooy Mariama Sarr ak euh, Baba Ndiaye c'est clair que dañuy dañuy tracer yoon wi ki nga xam ne mooy sëriñ buum. Serigne Mboup aussi xam nga du mës liggéey contre Macky Sall donc loolu moom c'est clair. Hmm. xëy na looloo tax. Euh, donc Serigne Mboup créé na surprise foofu ñu ngi koy également félicité euh, donc daal am na ay surprise Barthélemy day ñëw à la tête de Dakar donc à la suite de Khalifa Sall donc loolu euh, logique la. Hmm. mën nañ comprendre population Dakar population Touba mosuñu varié. Hmm. boo dee ba bulletin blanc di gagné. <laughs> bon kooku moom vraiment vote sanction boo xamante ni contre Macky Sall. te loolu du surprise Touba ñëpp xam nañ ni Touba moom. Mhm. du ñu voteel vraiment Macky Sall. léegi nag au niveau global nag Benno évidemment day rester majoritaire au niveau national. Mhm. nga xam ni beaucoup de candidats en dehors même de Mansour Faye nga xam ne gagné na Saint-Louis. Saint-Louis waaw beaucoup de candidats ñoom Ablaye Sow ñoo ñëpp Kaffrine ak euh, yooyu yëpp euh, Benno dafa rester quand euh, largement en tête. Mhm. mais Assane tey doon eh. boo doon analyser fu mel ni Guédiawaye euh, Alioune Sall lan moo ko tax ñàkk devant Ahmed Aïdara. écoutez je pense que Ahmed dès le départ dafa utiliser instrument rajo bi et tout mhm. mobiliser euh, ki nga xam ne mooy des média contre Khalifa Sall euh, contre euh, Alioune Sall dès départ mhm. on a compris ça c'est depuis des années depuis des mois loolu ça <laughs> donc pour une émission aussi populaire bi ñuy animé que tës. mais est-ce que tam du du du euh, Aliou Sall affaire pétrole beeg gaz bi ñu ko tudd am na lu mu ko wàññil ci doole aussi. non pétrole gaz bi yàgg na fii te teewul ñu voté ko. peut-être que en conséquence maintenant bi ko waa Guédiawaye defee contre Malick Gakou dañu gisul résultat. Hmm. liggéey bi moo des évidemment liggéey bi des na donc c'est bilan le bilan en fait. waaw liñ ci doon xaar. Hmm. Hmm. liñ ci doon yaakaar des na. Euh, te Ahmed def benn lobbying extraordinaire autour de ça. euh, évidemment créer benn genre pot affectif autour de sa personne. Hmm. indi des sympathies euh, contre contre Aliou Sall. bon affaire pétrole beeg gaz bi yàgg na fi. Hmm. yëngalul woon waa géej waaye dañu foogoon ni au moins dinañ ci am bénéfice te liñ ci doon yaakaar bon évidemment gisuñu ko. Hmm. te te wax dëgg yàlla nag Aliou Sall du fils de Guédiawaye nag. <laughs> waaw waaw c'est pas un fils de Guédiawaye. donc dañ yaakaaroon ne rek avec sa proximité avec le président. Mhm. dina wàlli affaire yi. Mhm. indi ko géejawaay te loolu ñoom gis ñu ko évidemment am na BRT nag. Mhm. BRT bi dina ubbi mais comme BRT bi ubbeegul. et que vie bi cher na. bon évidemment nit ñi sanctionné sanctionné Aliou Sall. essayer amet essayer amet ñu ngi koy souhaiter bonne chance. Euh, donc voilà. voilà léegi président Macky Sall moom ban euh, lecture euh, la war a def ci mbir mi est-ce que am na message boo xam ni jàpp nga ne askan wi yónnee nañ ko ko moom directement. ah oui message yi bari na euh, Fatou. Hmm. le premier message mooy li daaneel Macky c'est la demande sociale. maanaam tey le parti de la demande sociale mooy nit ñi dañu la mal vivre du sénégalais. Ah. mooy dundu gee metti. dundu gee metti dundu bee tar surtout dans les grandes villes yooyu ñuy wax noonu. Hmm. waaw pour nga dund fa du yombul mm-hmm. location yi kenn du laal facture yi kenn du laal loo jënd mu cher nit ñi amuñu moyen transport yi xat na metti na euh, loolu loolu moom moo gën a naqari les Sénégalais évidemment y la Covid euh, mais derrière y tout y a flambé prix yi parce que kenn du jëm ci élection di yokk ay prix mm. man loolu bi ko fi Ablaye Wade defee dafa am problème boo jëmee élection yokk prix régime bu mu mën di doon di nga am problème Euh, donc loolu mooy lii feeñ nii. Mm-hmm. donc c'est clair que euh, tendance bi bu continuer opposition bi sax bu gënoon unir imagine toi bu fekkoon ni Yewwi biir bi amoon waaw mu nekk la grande coalition qui a été annoncée. qui a été annoncée kon ma si waaw. le PDS maintenant dafa def faux jeu faux jeu boobu euh, moom moo dimbali sax pouvoir bi ci yenn côté yi. Mm. mais bu dul woon loolu razzia lay doon total. Mm-hmm. nga xam ni. Euh, signal bu bu tendance bi continuer jusqu'à jusqu'au législatif catastrophe day lay jur ak ci ci benn bokk yaakaar. Hmm. donc euh, le président Macky Sall dina ci tirer les grandes leçons euh, xool son entourage xool également sa politique xool son programme. Hmm. ñu xam ni rien n'est acquis d'avance. Hmm. te démocratie Sénégal démocratie majeure la. loolu Sénégal démontré moom démocratie majeure la. Euh, population yi génn nañ en masse voté nañu dans le calme même bu amee quelques incidents quelques kii malheureux teewul globalement gis mm-hmm. nañ le sens de la responsabilité mm-hmm. administration de commandement yi ak service de sécurité yi en sécurité def nañ li ñu war a def mm-hmm. ku nekk def jël assumer nga ses responsabilités le vote s'est bien passé globalement maintenant il faut que le président xam ni euh, le si le signal est fort ñu moytu lépp lu jëm ci waxi troisième mandat lu niroog loolu. surtout parce que population bi moom euh, ñu ngi taxaw. Mm. waaw léegi nag séisme dina am autour du président. Mm-hmm. c' est clair que. Euh, dina dina def def toilettage bu mag. Mm-hmm. remaniement ndax ministre yu bari dañoo ñàkk. ak oui oui ñu si en premier peut-être la ki si gën a ñàkk ñëpp mooy Diouf ñu ngi doon wax Amadou Ba mais Amadou euh, bu bu bu bu bu ku jotee ku fallul woon yaay am jàmm. Mm-hmm. waaw bu bu bu xewi jotee xewul woon mooy am jàmm. Mm-hmm. tey Amadou Ba moo gën am jàmm Abdoulaye Diouf Sarr. Abdoulaye ñàkk commune ñàkk ville bi. ñàkk waaw euh, loolu loolu day terrible hein. Mm-hmm. c'est pas parce que n'a pas bien travaillé. mais contexte bi mu nekkoon moo difficile. Euh, contexte bi mu nekk moom. aussi bien pour Yoff que pour Dakar. Dakar nga xam ni c'est pas c'est pas Dakar du pouvoir hein. Mhm. loolu moom nañ nañ ko wax. Mhm. Euh, Dakar euh, c'était xalifa Sall. Mhm. donc ak yooyu. donc commune yu bari ci biir Dakar gis nga ni ñu voté dañu voté contre. parce que culture politique bi culture républicaine bi Dakar lay ëppee. d'accord conscience républicaine bi gars yi fii la ñuy ëppee culture politique fii la ñuy ëppee sens critique. waaw donc fii fii la gën a mitee ci pouvoir bi. mais nag euh, comme ni ma ko waxee rek. tekkiwul ni dañuy perte législative dañuy dem cohabitation tekkiwul ni également. waaw justement am na ñuy séntu déjà cohabitation dafa teel ci sa xalaat. non no xam cohabitation pour le moment mënaguñ ko wax parce que euh, li daan xew rek moo xew mooy grande villes yi le pouvoir bi ñàkk. loolu depuis Ablaye Wade dañ ko doon observé. Mm-hmm. mooy les grandes villes. Mm-hmm. donte nag gis nañu ay surprise ñu yaakaar ne day gagné dañuy gagné gagné wuñu peut-être loolu moo indi euh, choc psychologique bi dafa am mm-hmm. choc. <laughs> waaw waaw dafa am choc ñu xam nga Omar Gueye man ku ma waxoon personnellement ni da nga perte gars sàngal kam man du ma ko gëm mm-hmm. personnellement donc yu mel noonu donc surprise yooyu la ñu observé un peu mm-hmm. partout euh, nga gis ni opposition bi am na percée yeewu mm-hmm. yeewu dafa yeewu dafa am percée dëgg gëm sa bopp bu nekkoon ci yeewu dina gën a am percée sax mais euh, opposition bi moo tas mais bu gënoon rassemblé wu dina gën a am force léegi nag bu tiré les leçons moom dina mën a yóbbu pouvoir bi ci situation bu difficile mm. euh, ci législative yi bu fekkee législative yi dina am parce que mm. mën nañu def report également waaw couplé ko euh, yóbbu ko présidentielle mais buñ ko bu législative day am dans six mois ce qui est très ce sera compliqué nag mm. pour organiser ko parce que day metti waaw day juste mais buñ ko defee évidemment pouvoir bi mën na nekk en difficulté bu fekkee mm-hmm. opposition bi tiré na la leçon di gën a rassemblé wu mm-hmm. a liggéey ensemble alors Assane euh, beneen seetlu bi aussi ci vote démb bi mooy élection locale daawul euh, xëy na soxale nit ñi ni mu mel démb euh, est-ce que scrutin bi ni mu changé la ñuy fal le maire au scrutin direct wala am na yeneen raison yoo xam ne ñu ngi laxasu ci mbir mi mun a expliquer peut-être engouement bi am démb waaw élection locale nag comme nawetaan politique la hmm. nit ñëpp dañ ci engagé wu Euh, du rek ay politique yi mais ñi nga xamante ni gis nañ ni daaw ñu def politique. Mhm. dañoo gën a jóg. voilà daal di dugg ci li nga xamante ni mooy élection locale yi. bëgg a yoral seen bopp mbir yi. Euh, waaw bëgg a yoral seen bopp maire yi dugal mhm. nag euh, population yi ci dynamique boobu. Mhm. maanaam tey ñoom dañoo jóg dugg ci population yi bëgg leen convaincre également ci situation boobu moo tax ñëpp mobiliser wu. da ngay gis sax quartier yi ak village yi ñun ñi nga xam ne daaw ñu def politique dañoo jóg bi yoon. waaw parce que dañu leen am ñu leen convaincre ne leen jóg leen ñu jàpp ci parce que suñu gox la te ñu ñoo ko war a liggéey. Mhm. Mhm. loolu moo indi donc passion bi ñu gisoon mhm. moo wàcc ci population yi. ñu gis ni également am na mobilisation exceptionnelle parce que man à chaque fois bureau de vote suñu bureau de vote suñu centre de vote du mas bu ma yaakaaree ni day wàññeeku rek su ma demee day yokku donc bi dix huit heures passé ba dix neuf heures nit ñi dafa gën a bëri maanaam euh, ñu nekk ci centre bi par rapport au moo ëpp que ñu nekkoon ci suba gi donc da gis ni am na engouement bu fort ba nga xam ne mobilisation exceptionnelle des population mm. bëgg seen ku si nekk bëgg nag sa candidat gagné. Mm-hmm. waaw loolu moo tax euh, élection yi am enjeu parce que tamit passion bi homme politique yi ñoo ko njëkkee. Mm-hmm. ci investiture yi mu wàcc ci population yi. ñu def ko euh, enjeu boo xam ñi naan ay primaire la ak ainsi de suite ñi naan suñu gox duñ ko joxati kenn ñu koy yàq ñi naan maire bi war na fi jóge donc ku nekk daal amoon nga li la ba nga tax na nga jóg ni man il faut ma dem voter Mmh. alors d'ici peut-être quelques jour quelques semaines président de la république dina fal euh, premier ministre bu bees yaa ngi koy brosser sànq dinañu séntu aussi ministre yu bari génn ci gouvernement bi ndax ni ñu ko baaxoo gis en général ku ñàkk élection yi dañu lay sanctionner mais euh, ñi nga xam ne itam demoon nañu ci yeneen liste Assane euh, boo moytuwul danañu am ay daan yu wàcc ci seen kaw jóge ci président ban gouvernement nga séntu président Macky Sall teg ko bu fekkente ni décortiqué na message bi ko askan wi yónnee ci élection wu démb yi écoutez d'abord changement yu métti parce que bopp yu bees dina ñëw. Hmm. Euh, day dina changer fondamentalement équipe am donte dina am nag ñu des. Hmm. Euh, waaye entourage am d'abord cabinet cabinet présidentiel euh, euh, entourage am au niveau euh, au niveau du, du gouvernement dina bari ay changements ministre yi bari dañ dem. Hmm. loolu moom c'est clair. ñeneen dinañ ñëwaat dina am aussi tête yu bees loolu moom lu leer euh, dans cette affaire là euh, lu ñu moytu war a moytu rek mooy équipe yu pléthorique maanam équipe yoo xam ne dafa bari ay ay ñu sessionné ko ministère yi pëccuxoo bari euh, élection yi élection yi wane ne loolu amul njariñ mm-hmm. boo xoolee ministère ministre Ablaye Diop bu Mali mm-hmm. ministère yi mu yor mat na cinq au Sénégal mm-hmm. mat na cinq au Sénégal kon kon jarul ngay saucissonné euh, defal équipe restreinte ñu liggéey parce que résultat yi en de fond résultat yi moo ci am solo. Mhm. c' pas parce que taal nañ teer bi mu ngi daw que population Dakar yi dañuy dem votel <laughs> erreur yooyu mhm. <laughs> stratégique yooyu la nit ñi di def. Mhm. parce que bala nga bi il faut am paas. bala dem ci terre bi il faut nga ndékki mais boo amul ndékki amoo paas dem di dugg ci terre xam nga du neex. yooyu nañ war di sóoraale donc Macky la mu waxoon maanaam. mandat bu bees bi da koy def man deuxième mandat bi da koy def sous le sceau du social. Mhm. bu ko respecté woon xamaana du demee nii. donc il faut mu delluwaat social. xam ni nit ñi problème boobu la njëkk a am. mooy les besoins primaires. fu ñu dëkk lu ñuy lekk lu ñuy naan ainsi de suite loolu mooy les préoccupations des population il faut loolu ñu régler ko par une équipe nag compétente nga xam ne ay nouvelle tête la ay dynamique loolu nag day jafe. Hmm. parce que nit ki changé day en peu de temps day jafe. Hmm. mais il faut que ñu dee dem vers ñu xam ni liggéey moo am solo mooy la meilleure communication pour un homme politique mooy liggéey waaw mooy communication non verbale def li ngay def nga xam ni am na fulaak de tekk ci yoon hmm. soo ko defee nit ñi effectivement euh, dañ lay foteel donc loolu mooy je pense la leçon à tirer je espère est-ce que dina ko tirer ou pas je ne sais pas mais ce qui est sûr mooy nouvelle tête moom dina ak nag beaucoup de sanctions. Hmm. sanctions yi mooy ñu defoon list parallèle te gañewuñu ñooñu moom <laughs> gisuma leen mbaaw. Hmm. waaw ñeneen ñi aussi mooy euh, ñi nga xam te peut-être perte nañ te loolu Macky Sall daf ko yàgg wax. Hmm. ku perte naa la sanction évidemment am na ñoo xam ne nag relation affective yi mu amee ñoom mën na tax bu leen jëlee foofu tamit mën na leen dugal faneen. mais dans tous les cas je pense que ñu bëri dañ ñu ngi lox di trembler. le pouvoir aussi loolu la Euh, politique aussi loolu la je pense que ku si nekk aussi danga am say moment euh, booy boo duggee ci jeu da nga war a xam ni mën nga perte et puis des risques à prendre te bi je pense que beaucoup de gens vont partir kenn dootu leen dégg